parenage mooy nga am benn signature citoyen euh, boo xam ne toll na ci zéro virgule huit wala un pour cent au maximum lan moo tax ngeen jàpp ne sénégalais yi dinañu parrainer président Idrissa Seck. waaw loolu question bu am solo la. parce que dama bëgg a fàttali ni Idrissa Seck dem na ci élection 2007 am fa plus de 400 000 voix ñëw ci élection 2012 naam deful campagne dafa taxaw respecter parole am sàmm constitution bi ba tax deful campagne ci xeex bu ma nee sàmm doom mooy xeex troisième mandat ab Ablaye Wade autant mais weesu nañ ko mais c'est juste pour dire que li tax deful campagne c'était pour respecter sa parole. Mm. deful campagne. am na plus de deux cent mille voix. Mmh. donc am na plus de quatre cent mille deux mille sept plus de deux cent mille en deux mille hmm. kon kooku bu ñuy wax te waxal yàlla parrainage tëwu ko soixante mille voix tëwu ko maintenant li tax nag ñun ñu jàpp ne bu fekkee ci géewu parrainage lañ ñu woo na am xeex nañ niñ ko tëralee ak euh, vote loi beeg yooyu yëpp comme ñu ngi ci biir parenage ñun jàpp nañ ni Sénégalais dañuy pare parrainer sa Seck non seulement dañuy parrainer Idrissa Seck pourquoi parce que y a un stock de deux cent mille voix qui est là euh, deful campagne voteel nañ ko loolu c'est un stock sûr au-delà de cela li tax sénégalais di parrainer sa Seck bëri na bi ci njëkk mooy Idrissa Seck en tant que candidat dama leen di jox quelque euh, extraits des grandes lignes de notre programme qui en cours de de confection Idrissa Seck propose bu ñu ko falee le revenu minimum familial lan mooy revenu minimum familial Idrissa Seck dafa jàpp ne bourse de sécurité familiale non seulement dafa ndaw mais joxuñ ko dañ ko war a jox dañ ko politiser ku bokk APR ñu jox la ku bokkul duñ la jox ku ñu jox bu ñu gisee ni élection yi jub si sa gox gañe nañ bu bëri ñu maintenir la bu demewul noonu ñu nangu ko loolu c'est politiser Idrissa Seck dafa jàpp ni également donc bourse de sécurité familiale ndaw na joxewuñ ko niñ ko war a joxee genre sarax la moom li mu gis mooy sénégalais yi il mérite mieux le revenu minimum familial est adressé aux femmes de foyer dafa jàpp ni jigéen yiy des ci kër yi bu ñëpp demee liggéey jigéen ñi des ci kër yi di yar doom yi di fóot di togg di yàq di ménage di def bépp liggéeyu kër dafa leen war a jox seen dignité dafa war a rémunérer liggéey boobu effort boobu donc pour mu rémunérer ko il y aura un revenu minimum familial versé mensuellement aux femmes de foyer évidement selon des critères d'attribution yu ñuy permettre ñu ne kii ak kii dinañ am le revenu minimum familial chaque mois donc loolu mooy bi njëkk bi ci topp mooy gis nañ jamono yi ñu weesu ba léegi d'ailleurs ba léegi problème mu ndox bi am Sénégal au vingt et unième siècle ñuy woote pays émergent problème mu ndox en pleine capital à Dakar musiba la ñun nag ñu ne pour saafara loolu li ñuy proposé mooy dañoo gis ni SDE dafa nekk en monopole ci secteur de l'eau état moom moom ndox à travers euh, euh, SONES pardon exploitation bi mu attribué ko SDE SDE di def lu ko neex loolu mooy jeex ni muy jeexee mooy exploitation bi dañ koy tas à plusieurs entités yoo xamante ni dinañ assurer correctement distribution wu ndox de sorte que au vingt-et-unième siècle au Sénégal pays soi-disant émergent nit ñi duñu ñu malati du ñu toog ay fan du ñu sangu du ñu toog ay semaine du ñu fóot ainsi de suite loolu dina fi dañ incha allah ak président Idrissa Seck loolu mooy ñaar beneen bi mooy moom bu faloo bëgg na président de la république ak ministre de la justice du ñu siégeeti conseil supérieur de la magistrature en tout cas du ñu fa nekkati président loolu li mu ci jublu mooy une totale indépendance de la justice maanaam exécutif bañ amati yoon bu muy jaaree di manipuler justice pour def lu ko neex comme ni ñu ko gisee actuellement ci Macky Sall pour le cas de Khalifa Sall ak Karim Wade dinañ ci ñëw incha allah donc pour loolu deñ fi pour une totale indépendance vraiment une totale indépendance de la justice président ak ministre de la justice retiré wu ci conseil de la magistrature bàyyi leen ñoom ñu gérer seen secteur ñoom kese xëy na nag après dina am ay organes de contrôle yoo xam ni compte tenu du fait que juge nit la matul organes yooyu dina permettre de recadrer de de d'assurer en tout cas le contrôle de du bon fonctionnement de la justice. Mmh. loolu mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy Idrissa Seck bu faloo du nekkati président wu parti réew mi loolu lu jar a gëm la parce que euh, ñu ngi one est de teg ay jéego yoo xam ne ñoo ñuy permettre bu faloo ñu def congrès bu ñuy permettre choisir suñu candidat euh, suñu président pardon bi koy remplacer. loolu lim ci jublu leer na mooy une totale démocratie de sorte que président ñu xàjjale ko ak président wu parti de sorte que donc démocratie gën a dox bu majorité bi doxalul yoon ñu dal ci kaw président euh, parti bi bu président de la république doxalul yoon ñu dal ci kawam ak anam yi dëppoo ak yoon donc loolu day permettre renforcer les acquis démocratiques yi ñu am fii Sénégal te nga xam ni Macky Sall nasaxal na ko parce que moom président la mais il est beaucoup plus président APR gis nañ euh, ni muy demee ay militants lay jox fii ay millions ainsi de suite ah bëri na bëri na yoo xam ni day wane ni moom il est plus président de son parti que parfois même président de la République li mu doon woote naan euh, la patrie avant le parti gis nañ ni mu mujjee c'est le parti la famille la belle famille euh, le clan avant la patrie c'est ça c'est la réalité des choses mmh. donc loolu bokk na ci li nga xam ne Idrissa Seck bëgg na ko euh, indi ci doxalin buñ ko falee. yeneen yi ci topp mooy Idrissa Seck bu faloo ministère de l' éducation nationale du amati dafay teg un conseil supérieur de l' éducation nationale loolu lim ci jublu mooy euh, mu euh, mu élargir organe de décision bi à une plateforme collégiale day inclure le professeur le directeur décole école le parent d' euh, le représentant de l'État ça sera un ministre ou quelque chose d'autre mais en tout cas day doon euh, un cercle collégial boo xam ni lépp lu ñu war a décider ak problème bu am ci biir jàng mi foofu la ñu koy régler de sorte que day efficace parce que ñiy dund problème bi ak ñi ko causé peut-être dinañ toog autour d'une table pour régler ko donc loolu lu am solo la euh, beneen bi ma ci mën a teg mooy euh, Idrissa Seck bu falo incha allah dina gestu bu baax les sénégalais de l'extérieur bi muy njëkkee mooy moom dafa ne doy na ñuy bunduxataal ak di rey ay doomu Sénégal bitim réew donc loolu ni mu bëgg a def pour dindi ko mooy bu faloo incha allah bu ñuy joxee ci yenn marché yi bien dama dañuy njëkke ci entreprise yi nekk Sénégal d'ailleurs moom li mu gëm mooy da ngay dooleel say entreprise ba ñu mën a nekk compétitive par rapport aux entreprises internationales parce que dégg nañ ñu naan ñu woy marché yi ñuy jox ñee c'est parce que entreprises sénégalaises yi euh, ne sont pas à la hauteur ou bien ne sont pas aux normes loolu du wax say entreprise say doom da nga leen di euh, renforcer may leen fit ak doole ba ñu mën a taxawal sa dëkk euh, wuyu aux appels d'offres donc ñun ci loolu la ñuy jublu voilà donc bu jubloo ci loolu marché yi ñuy joxe bu fekkente ni gis nañ ni domaine bi xëy na euh, wala euh, substance bi ñu ci laaj mënul nekk euh, entreprise sénégalaise donc entreprise sénégalaise lañuy ñuy favoriser loolu dëkk bu normal boo dem noonu lay doxee France buy ñëw day ànd ak ay entrepreneur am dooleel leen Turquie Maroc waxi noppi hmm. Sénégal rek ngay gis muy jëfee safaan ma donc ñun bu ñu gisee ni marché bi mënuñ ko jox entreprise bu nekk Sénégal ñu war a appel ñu war a faire appel ay une entreprise internationale ni ñu koy joxee bokk na ci critère d'attribution yi xool ndax entreprise boobu dëkk ba mu nekk ndax sénégalais yi ñu ngi leen fay jox cër bu matt ndax sénégalais yi nekkuñ fa di leen bunduxataal di leen rey ak a def yëf donc tey jii Idrissa Seck bu falo pour benn entreprise internationale mën a gagner marché au Sénégal il faut que d'abord mu respecter il faut que d'abord mu protéger il faut d'abord mu yëkkati sénégalais et loolu bu ko waxee lu mën a nekk la parce que mën naa leen jox exemple étudiant gabonais ak étudiant algérien yi nekk France seeni njiit ba ñuy voté ba ñuy signé pardon ay traite euh, ay ay ay ay coopération bilatérale pour wàllu gaz wala pétrole wala manganèse pour le Gabon ainsi de suite dañoo faire valoir cela de sorte que man mi nga xam ne étudiant laa woon man mi nekkandoo woon ak ñoom foofu gis naa yenn privilège yu ñu am yoo xam ni ci signature contrat yooyu la ko seen seeni i njiit euh, dugalee ci biir ba ñu koy jëfee donc c'est possible loolu sa Seck digg c'est possible beneen bi mu dig les Sénégalais de l'extérieur euh, ñu tàcc ko ci lool te yàkkamti woon ko mooy ku bëgg a jëlee ci sa oto bitim réew indi ko Sénégal dafa lay yombalal mbir mi. jeex na ay oto bi am na cinq ans wala huit ans wala dix ans. mais loolu Macky Sall def na ko. non waaw moo tax nag ma ne non non non Macky Sall li mu defoon mooy cinq ans. Hmm. jékki ñëw huit ans. et li li li mooy daf leen dig ne bu ñu ko falaatee dina ko def dix ans donc day xaar de bref en tout cas Macky li mu def mooy fixé ko huit ans ñun li ñu wax mooy li sa wax mooy huit ans boobu ñu wax dañ koy jël tege ko nële. mais est loolu du contribuer di dugal mbalit mi si biir Sénégal. pourquoi non du dugal mbalit parce que bu ñu seetloo li am Sénégal bëri na oto yu jógee fii Sénégal cosaanoo fi di daw nekk mbalit di polluer di rey ay nit donc bëri na fi oto yu nekk Sénégal yoo xam ne yi nekk bitim réew ñoo leen gën a yellool daw biir Sénégal il faut ñu ñu ñu bàyyi di wax benn affaire am na ñu naan aussi loolu te mu euh, freiné ñiy jaay oto yu bees non affaire bi choix la. yow mën nga am njëgu oto bu bees mu gënal la nga indi sa oto ba nga bàyyi France choix la mën nga am oto bu nekk France nga dem jëndi oto bu bees donc ci côté boobu il y aura pas de problème donc moom li mu teg mooy huit ans dix ans cinq ans ñoo ci bokk yam li muy laaj mooy benn na oto bi am kayit yu mat fa mu jóge assurance carte grise na nekk en règle beneen bi mooy oto bi na passé contre visite foofu wala na am euh, pardon na passé visite technique ca dëkk ba muy jóge wala en tout cas na am visite technique boo xam ni c'est valable loolu mooy un de deux bu yegsee Sénégal day am contre visite pour ñu mën ko accepter mu daw Sénégal donc visite ak contre visite boobu ça permet de vérifier comme li ngay wax est-ce que mbalit la am déet que est-ce que day polluer am déet ainsi de suite donc loolu lu am solo la lu mu dig sénégalais de l'extérieur yi et du yam ci dig c'est faisable bu ngeen seetloo sa Seck du diggee lu bëy day bàyyi ba saytu bu baax li muy diggee soo koy génnee diggee ko